السلام عليكم ورحمة الله بوك انتني شين فوبل تي في نيو نالين بو باخ زيخ لين دي ام بيك تساس ني ديفال لين فيديو بو ني خامتاني نيو شين ما لين واخ ويلكم بيان فوني ابوني كليك لين سكولوس بوم لين غيس فيديو بو ندول ني مان كو فاتي تيم ان فيديو بي تريز امبورطون بوك انترنت دي تي دامي نيو نك واخ سي نامبل سيمين بي خامتاني جوسكا بريزان amogul ben club manam dafa libre equipe arabie saoudite don wax mais batay dara bougerul waxtan fi dem turki dara bougerul diku nak il faut ñu taxaw seetlu dañu jëm ci mois de septembre bu xamantene mo ngi ni ci ñu kanam ñëw na daanaka ba paré muy euh, suñu ñaar jàmmarloo benn bi contre Rwanda benn bi contre euh Algérie match amical fi ci réew mi stade maître Abdoulaye Wade maintenant nak amul club pour ñu convaincre la dina difficile lool donte nak Aliou Cissé dafa bëgg ki di Nampalys Mendy euh, ñu japp né nak équilibre bu milieu terrain bi équipe nationale du Sénégal ñu bëri dañu japp né c'est ki di Nampalys Mendy mu tek ko contre Brésil ça a très bien marché à côté de Pathé Ciss ak ki di Pape Gueye euh, maintenant nak bu amul club c'est problème bi fa la mom mom mom man pour man ci gis ci parce que ñu question concernant suñu boy xamun wax leen vidéo en attente mo ñi xam ñongi xaar ak ñi vidéo euh, suma rek Sofiane gis et que euh, Andy ak boy jaara xam nga donc ñoom ñooy xaar mais nii ma gisee ak ni muy doxee ak ci li ma yëg ak si li ma si lañ ma xamal bon ku maytul booy bële dina ñëw de euh, booy Habib Diarra maintenant nag bon avoir voir France dans le nar de def ak moi je bi mooy boobu Sénégal et je pense que dernière fois mu au Sénégal vacances vacances du si en troisième, am waxtaan nañu ak mon carrément wax ko Sénégal lañ bëgg nga jouer et aussi système la prestations contre Brésil est-ce que changé wu un peu avis un propos ak Sénégal et propos mon carrière et aussi système qui di euh, grand frère am mu koy déglu bu baax a di ko muy Diallo donc loli yëpp boo ko jëlee euh, kii di Nampalys il faut faire très attention pour que ku tout.

temps bi day dem jour yi dem ñi ñi di affaire bi di gën a avancé et que pour man euh, liste bi war a am mois de septembre li ko war a déterminer dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg mooy mois d'août bi maanaam ñi gis mois d'août jouer football wane seen bopp ñooñu ñoo war a ñëw juillet mois de septembre loolu moo loolu mooy yoon mooy dëgg ñii gis mois de mois de août bii nii xam na saison bi si dee tuddi ñen nañi xam nga parce que instant Ligue 2 commencé na Ligue 2 française donc Ligue 1 léegi mu ñëw prochainement rek donc euh, quelques jours mos dess yenen championnat peut être fii ak si kanam déterminé kon ña ñoo war mois de septembre c'est mois d'août. donc mois d'août, août boo boo en forme T'es bien parti pour être convoqué même si nak la ah, liste kon ko changer do ñëw rek chambuler lepp kooku bokkuma si ñi di wax loolu non ñëw na damay changé raxas déedéet déedéet mais nak pour man yenn place yi li kay mëna déterminer li mëna aider Aliou Cissé moy nga jouer et vu ni ma gissé le cas de Habib Diarra di côté de Strasbourg jour kelele bu et si toutefois sax à Strasbourg ce sera Juventus ce sera Manchester United équipe yu mag yooyu ngay même si nous mën nañu ko dans la foulée perte Mais mais euh, sur le cas Juventus nous ko jël pour teg donc loolu boo ko boo boo donc Nampalys c'est à lui de trouver un club parce que man ne parle même pas de Soumaré de de de de ah. Je parle parle d'un dossier la wax naa si li mais euh, vu ñu ma gisee